inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wa man min beytihi muhajiran ila allahi wa rasulihi summa yudriku mawtu waqa'a ajruhu allah inna lazina sa'u li xidmati falahum diyaara wastal jannati asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu surtout Serigne Habibullahi moom Cheikh Mouhamadoul Fadal ak ci turu mbooleem waa Touba ci kanam sëriñ Habibou di yëkkati kàddu ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi nekk sëriñ Touba moom mi nga xam ne liggéey bii nu nekk di ko liggéey moom moo nu koy liggéeyloo suñ borom mii dogal nag dogal ci ab dogalam tey jii am lu xew ci biir liggéey bi xew ci ñooñ liggéey bi di ay bokki taalibe yoo xam ne dañoo jugoon jaayante ak Sëriñ Tuubaa ñëwoon ànd ak nun di liggéeyal sëriñ Tuuba yàlla dogalee nag nu ne ci liggéey ba sun borom mi nga xane lu am mooma te sañ te man tey def tey dindi te kenn sañu ne ko lu tax nga def mu def ci coobareem ak kattanam ak sañ-sañam jëfandikoo ci ay jaamam la ko ca soob te muy lum sañ te du tàggu kenn te waxoon na ko ba yàgg nag kullu nafsin saa'iqatul mawt allazi xalaqal mawta wal hayaata kon mbir la moo xam ne mu baaxoo am la dikkiin yi nag mooy wute ak saa yi dikk ak ni muy dikkee bu yàlla dogalee nag mu am ci takkusaan bi nuy woo Sëriñ nu bokk toog nu xamal ne nu am nañu yàlla wàcce ab dogal seen kaw booba sax xëj na dogalu faatu ak séegut waaye dogal du aksi na fan ko yëgee tàmbali di ca ñaan nis ku si lan woo xamal la ca xew booba itam la nga xam ne moom la ab jaam man daal dinañ koy tàmbali def muy jug dem ci ki nga xam ne mooy sunu kilifa di Cheikh Mouhamadou Mountakha yëgal ko ko bii ko ko bi nu ko ko waxee lim njëkk a waxe mooy ñooñu dañoo saxit saxit mooy ko dee ci xarab lislaam boo kàddu rek doy na sëkk dañoo saxit la wax joxe ak ñaan yóbbante nu ci seeni bokk ak ñaan yóbbante seeni bokk dalu xel yóbbante seenu nu seen bokk massawu yóbbante seen seeni bokk am njaal ci kaw loolu nag Serigne Habibu ak waa Touba Ca Kanam gépp di ci yëkkati seeni kàddu ginnaaw boo xamante ne ki moom liggéey bi moom dem nañ ko ba Touba ci kanam di xam la ne li xew day moom yàlla suñu moo xewal te di ko xewal ci ku ne ku mu ci nun ci waxtu wam ko sàkkee ndax ku ne ba mu la bindee la la bindaale sab dikk kenn ku nekk bis nga fi nikk alhamdulilah bi alamin nag ñii seen bis dafa aksi waaye mu agsi ci ak seen wu taw feexe ak seen wu ànd ak ndimbalul yàlla ndax xëyal sëñ Tuubaa sa bakkan des ca ma su ta ëpp yaakaar amee su am yaakaar jug ëpp fañ jëm kon mbir la mu diis mbir la mu bette mbir la mu metti waaye nag mu sante ko yàlla ndax kenn du wees sa bis suñ demee wutoon ci nii it danañ demee ci neneen waaye bisub dem moom kenn du ko weesu li kulli ummatin ajal fa isa ja ajaluhum la yastaxiruuna saatan wala yastaqdimuun kenn ku ne sëb dig du avance minute du retard minute waxtu wa dig ba agsi képp képp ca ngay faatu ku mu ci noonu rek loolu lay nikk kon ñoom seenu digg dafa teew alhamdulilah bi alamin nag ba mu teewee ci fekk leen ci loo xam ne mënee faatu ci lu ko gën mënee suta faatu ci lu ko ëpp yaakaar ko mënee ci lu gën liggéeyal sëñtuwa kon ñi nga xam ne yàlla dogal lii mu dogal ci ñoom noon day ay jaam rekk lan dañuy delloowaat lépp ci yàlla mooy li ma ubbee te suñu borom wax ne lu dal ci seen kaw na ngeen ko wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaye nag laaye jooju ma ci teg nga ne suñu borom daa wax ne képp ku génn sa kër dox wuti yàlla ak yonente bi di def loo xam ne yàlla képp a tax ak yonente bi ba faatu fekk la ca la nga bëggoon am nga ko ndax danga jot sab yoon sëriñ Tuubaa itam wax ni ne suñu borom ñëpp ñi nga xam ne gaaw nañ buñ ma wootee di ma liggéey danañ gaaw jëm ca liggéey ba na nga leen defal ay kër yu bari ci digg àjjana kon nag ñii suñu xel dal na ci ñoom ndax kat ay jàmbaar lañu woon moo leen taxa seen seen bakkan des ca kon ñi nga xam ne ñooy seen wayjur ñu ngi leen di mastaw ci turu sëñ Abibu ak turu kanam gépp di ànd ak ñoom tiis wi di leen xamal ne bay boo seen xel dal te seen njort rafet te xam ne liñ bëggoon ci seen doom yi de moom yàlla defal na leen ko ci ndax sëriñ bi moom képp ko yàlla booleeg moom am nga taw feex waaye liggéeyal sëñ Touba nga ne biir liggéey ba sa bakkan des ca loolu moom ndimbalul yàlla moo koy maye taw feex ju kawe moo koy maye waaye yombul ñëpp kon ñoom gannaaw dañoo xëyaloon sëriñ Tuubaa yàlla suñu borom mi wàccee fekk leen wàccee leen ci toolu sëriñ Tuubaa ah ñooñu di sant yàlla bu baax la def ci ñoom li ñuy wax de xëy na dañ yàlla sunu mujj rafet daal ba mel na seenu mujj bakk sëriñ Tuubaa loolu rek ci mën a dolli waaye mujj rafet mënta weesu ci toolu sëriñ bi ndax bari na lu ma koy wax ci bis boo xam ne dafa toog njëriñ ba guddi mu jekk-jekk génn waaxu ba ci ay armeel yu newoon ci ginnaaw mu taxaw ci fekk bi mu ne tëll bunt bi am na ku jox jox satale gi mu ŋàbb ko fekk mag ñi dañ daan def bu kenn day boof ci bunt ndax duñu xam bunt bu muy génne am ko mu jox satale waxu ko dax di waaxu waaye mu topp ci satale gi ba mu dem ba wër armeel yi ba noppi taxaw ne ko ana kii kooku ku ñu wax suñu Omar Diba la mu ko mën a Omar Diba mu ne ko xanaa ameel yi moom ñi ñu fi suul kenn ko mos a liggéeyal wala kenn ku mos a ko mos a liggéeyal nekku fi ameel ñu fi fi suul xanaa kenn ko mos liggéeyal wala ku mos a liggéeyal ko mos liggéeyal nekku fi suñu amoo du ne ko ah loolu day mbàkki kumba sama mu ne ko ameel ah, yi de ko mos a liggéeyal nekku fi ku mas a liggéeyal ko mas a liggéeyal nekku fi ndax seen yuux yi moo taxoon mënatumaa nekk ci sama kër gi waaye bi ma fi tegee sama tànk lañ leen jégal armeel yi sëñ Amadou ba mu xëyee ñam ko laaj dañ ko ne ay séeréer yu tuubut lañ fa daan suul xamuñ jullit guñ fa mas kooku nag kon ku ko nekk ci tool toolam ba faatu fekk la ja ah sam xel wal naa la sa sa njort war naa rafet tu kon loolu ñu xam le ne ak càggante wéralu ko ndax ay machine na ko doon gas te gas nañ ko gasin woo xam ne tegu na ca yoon wa nga xam ne moom la seen xam-xam laaj ñu woo koo def waaye nag yàlla miy dogal moom moo dikk ko dogalam buñ demutoon foofa it dem feneen nit demee na nu ne nit dem na ci lu ne nit tellu na fu na dem waaye dem ci daal dem goo xam ne fu mu demee ñu ne daa xëyoon ci toolu sëñ Tuubaa faatoo ci daal kooku dem moom yàlla na ko yàlla tawfeexi la te mu yeex te ñu yàgg fi yàgg leen ñaanal di ma sow ñëpp di ma gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp di jéggul